militaire ñooñu ñoo waroon a njëkk a wax ci kaawu Fulbert te li ñu wax ci Fulbert benn ñun gëmuñu ko ndax corps bu def cinq jours ci ndox le 18 ba le 23 ñu ni mënuñu ko autopsie man ci taatu ndox laa dëkk Yoff laa dëkk ñeneen ak ñeneen ñi ngi fii ñoo xam taatu ndox la ñu dëkk gis nañ pas mal de corps yoo xamante ni ñu ngi leen suul ci tefes gi lan moo tax ñu suul leen tefes gi parce que décomposition avancée ba nga xam mënuñu ko yóbbu mais corps boo repêché jël ko yóbbu ko ba yóbbu ko morgue kon corps boobu waroon nañ ko mën a autopsie bu fekkoon ni corps bi am na décomposition avancée comme nit ñu ko waxee kon on devait l'enterrer sur place à la place mais pas ñu jël ko ba yóbbu ko autopsie ambulance bi ñu ko jugal jël écarté ko sa femme qui s'est déplacée de Ziguinchor jusqu'à Dakar bi mu ñëwee sa borom kër génn àdduna ñu la koy wan par téléphone loolu ñun dañ koy naqarlu te man damay wax te moom la ñu gëm corps bi nga xamante ni moom la ñu suul le 29 novembre 2022 du corps Fulbert Sambou c'est pas le corps de Fulbert Sambou ndax benn ñun ay musulmans lañ Fulbert et chrétien ñun ñëpp xam nañu corps chrétien dañu koy exposé pourquoi ils n'ont pas exposé le corps funéraire à sa famille à ses amis donc y a quelque chose loo xamante ni waxuñuñu ko te ñun loolu la ñu bëgg ñu leeralal ñu ko mu leer suñuy bu ñu jógee ci loolu ba ñu entere Fulbert ñi nga xamante ni bokk ci classe quatre-vingt-dix-huit jóge fi le 16 décembre mille vingt-deux jóge fii Dakar dem pour jaale ji la famille de Fulbert sa femme ils ont été suivis par des nervis nervis yooyu nag kiñ ci gën a ràññee mooy ki ñuy wax sniper sniper de son vrai nom je m'excuse Jérôme Bandiaki de la classe 2001 1 mu servir au troisième bataillon li ñu naan la légion kon bu ñu leen nee Jérôme Bandiaky c'est un légionnaire jógewul légion étrangère moi j'étais à la vingt à la troisième bataillon d'infanterie mooy légion bii c'est ça la légion du Sénégal kon Jérôme Bandiaky boobu sniper bokkul légion étrangère troisième bataillon d'infanterie quand mu Djimit à Kaolack ñooñu la ñuy woowee les légionnaires du Sénégal te man j'étais là-bas à la trente et unième compagnie ñoom laa àndaloon dem seen bat six au Soudan au Darfour donc c'est ça la légion sénégalaise donc Jérôme Bandiaky boobu moom la ñu recruter mu recruter ay nervi ils ont poursuivi nos classes nos amis qui se sont déplacés de Dakar pour dem Ziguinchor pour jaale ji la famille de Fulbert ñooñu seen bakkan mi ngi woon ci xottu gerte ñun nag comme ni ma koy waxee chaque fois un militaire n'est jamais en retraite il se retire de la troupe on s'est retiré de la troupe on est militaire aujourd'hui depuis qu'on est entré dans l'armée le 1er mars 1998 jusqu'à présent on est militaire parce que le statut qu'on entend mooy lan ancien militaire donc on est militaire aujourd'hui et on le sera pour toujours ba tey ñun suñu biir dañuy woote mais am na ay agent yoo xamante ne renseignement lañ bokk ñu ngi leen yabal ñun suñu biir man mii j'ai reçu pas mal de menaces mais loolu toppatoo ma ndax boo may menacé nga may menacé par téléphone man fii laa juddoo HLM Patte d'Oie j'ai fait ans à Yoff koñ bi ci ginnaaw laa juddoo je fais les premières de la cité ku ma xamul boo duggee HLM Patte d'Oie di nga ma xam ma Lamine Seye mi toog moo ma yar kon aw ma lu may ragal aw ma lu may tiit. rawatina mu doon suñu classe suñu doomu ndey Fulbert Sambou kon ñu jàpp ne Jérôme Bandiaky boobu il est de la classe 2001 une servir au troisième bataillon d'infanterie camp mu Djimit à Kaolack kooku nag moom mook dajale woon nervi yooyu ñu topp ñi doon dem di jaale ji à Ziguinchor bi ñu jogee ci loolu ñi nga xamante ni tey ñoo taxaw nañu Fulbert dafa dee ci noyade muy procureur procureur bu mu ko waxee ba léegi gisuñu benn autorité militaire wala autorité étatique de l'ex-régime bi fi jóge mu taxaw seex ci wala mu yàbbi ci loolu dañ koy naqarlu comme tout sénégalais plus particulièrement ses classes dégg nañ nag le 9 juin le premier ministre Ousmane Sonko tey lu ngeen xamul Ousmane Sonko avec tout le respect qu'on lui doit Ousmane ak Fulbert Sambou étaient des camarades d'école ñoo jàngandoo au CMT de Ziguinchor Ousmane Sonko ak Fulbert Sambou donc man li may lancer Ousmane Sonko waxuma en tant que sénégalais Fulbert Sambou en tan que quelqu'un qui a servi son pays mais primo quelqu'un qui xam ne c'est un camarade d'école ngeen bokkandoo benn école te la ñu reyee Fulbert dama koy wax. Macky Sall ak i ñooñam ak ñi ma lim nii les autorités militaires ñi fi nekkoon ñoo rey Fulbert Sambou ils l'ont liquidé kon lu ñuy lancé gouvernement bi fi nekk plus particulièrement son excellence le président Bassirou Diomaye Diakhar fay le chef suprême des armées que mbirum Fulbert ak Didier Badji ak Mancabou ak victime yi nga xamante ni dañu fi am yëpp ci 2001 ba 2023 nañ ñu ci andi lu leer ñun ñu daal di xam li ñu bëgg ñun la les amis de Fulbert Sambou suñuy rangooñ la ñu bëgg ku ñu ko fompal ba suñuy bët daal di set wicc tey famille Fulbert mënuñu dëj seen doom ndax xamuñu seen doom ndax ku ñu suul Saint Lazare seen doom la man dama ni déedéet ku ñu suul Saint Lazare n'est pas notre classe ki ñu suul Saint Lazare c'est pas Fulbert Sambou et ce ne sera jamais Fulbert Sambou donc ce que au demandons aux autorités étatiques que nous sollicitent le décès de Fulbert Sambou Parce que Fulbert s'est porté volontaire pour servir sa nation. Fulbert a tout donné pour le Sénégal. Donc le Sénégal doit lui rendre la monnaie. Le Sénégal doit lui rendre ce qui lui appartient. Fulbert était un homme brave, un homme, travailleur, un sous-officier de l'armée sénégalaise. Comment un sous-officier de l'armée sénégalaise peut disparaître d'un jour au lendemain et que les autorités n'osent même pas parler et que nos autorités n'osent même pas publier mot J'indexe, monsieur l'ex-président Macky Sall, J'indexe le SEMGA à l'époque, j'indexe le ministre des Forces armées à l'époque, le ministre de l'Intérieur, le ministre de la Justice qui vient de sortir dernièrement, monsieur, euh, comment il s'appelle encore Ismaïla Madior Fall. Ce qu'il a dit, que Kaou Fulbert, ak Mankabou, ak euh, Didier Badji, dañ koy boole ci amnistie. Pourquoi ñu koy boole ci amnistie ñoom ils étaient apolitiques, ils étaient des hommes de tenue. Fulbert était militaire, Didier était gendarme. de sous-officiers de larme sénégalaise ñu ne dañ leen boole ci amnistie ils étaient pas des hommes politiques kon bu ñu demee ba di leen boole amnistie kon yaa a yaa y a crime looy amnistie c'est parce que dafa am crime kon ñoom ñoo rey Fulbert Sambou kon moo tax ñu bëgg ko amnistie loolu duñ ko nangu tey duñ ko nangu ëllëg la cas de Fulbert dafa war a leer naññ Fulbert bi mu demee nappi keroog le 18 boobu la ko nit ñi gëj a dégg à midi jën yi Fulbert nappoon moom lañu ñi mu bokkal nekk jën yooyu lañu ñu reeree guddi googu boobu fekk nañ jël nañ Didier yóbbu ko au palais torturé Didier ba Didier dee ñu jël Fulbert daal di ko ciy teg comment Fulbert koo xamante ne ñoomul la dëkk ci île di nappee ci ay xeer maa ngi vidéo bu nga xamante ni ana suma téléphone mi ngi maa ngi benn vidéo bu nga xamante ni oto Didier Badji fi mu gaare ba tey mi ngi fa gaare Fulbert Sambou néegam ñu ngi ko tëj Fulbert corde corde bi mu takk bi muy takk ci garab pour wàcc ci xeeri kor corde baa ngi foofu attaché wu ba léegi Fulbert foofu la mës di jaar di wàcc di napp ay lan lay napp ay waas waas fañ nga koy nappee ci tefes gi ñun ñëpp on a fait la Casamance woowu deful yéen ñi fi teew ku ci nekk xam nga ni waas kenn du ko jàpp ak mbaal waas caas nga koy jàppee tafal la koy jàppee ci taatu tefes gi comment ki nga xamante ne ci ay xeer lay nappe ci taatu tefes tey ñu bëgg ñëw nañu kooku il s'est noyé dafa lab gëmuñu ko tey gëmuñu loolu ëllëg gëmuñu ko tey gëmuñu ko ëllëg te li ñu bëgg pour mu bañ a yàgg ñu leeral mbirum Fulbert vidéo bi ma yor nii nag ku ko bëgg mën naa la ko jox néegu Fulbert oto Didier Badji fi ñu ko baasoon Cap Manuel oto baa ngi foofu ñu baase ba léegi lan na ci biir nag ñoom ñoo ko xam ci biir oto bi enveloppe mi ngi fii te am naa ci ay lu leer naññ que ne enveloppe boobu permis DJ mi ngi ci biir enveloppe bi carte d'identité DJ mi ngi ci biir enveloppe bi carte professionnelle DJ mi ngi ci biir enveloppe bi c'est carte bancaire mi ngi ci biir enveloppe bi lan moo ko fa dugal man bi may dox sama kalpe mi ngi sama poos sama kalpe tey bu ñëwee ñu fekk ko porte habilité lan moo ko yóbbu porte habilité ki ko fa yóbbu moom a sàkkal pexe ñu jëlaat bagage DJ yooyu yóbbu ko ci oto DJ ñoo sàkkal DJ pexe te ñu sàkkal DJ pexe ñoo sàkkal suñu classe Fulbert Sambou Pexe kon na leer ci nopp sénégalais yëpp ñu xam ni Fulbert et Didier ils ont été tués par qui par Macky Sall ils ont été tués par qui par Moussa Fall ils ont été par qui par Sidiki Kaba le ministre des forces armées à l'époque ils ont été tués par qui par Ismaïla Madior Fall le ministre de l'intérieur ils ont été par qui par le Semga Cheikh Wade par qui encore le commandant de la zone militaire numéro un le chef de corps de Fulbert Sambou son corps d'appartenance son chef de service pour mu ñu am ko foofu ndax naaj wi tàng te ci àjjuma la ñu nekk du jox suñu kàddu gi jox ko suñu doyen Boubacar Seye euh, moom mooy président collectif des victimes de l'ex-régime de Macky Sall jërë ngeen jëf. président Adja Adja après ma la